mbokki tey nag xam ngeen ni euh, club bii di Real Madrid euh, fa seen euh, jàkkaarloo ñi nga xamante ñoom ñooy Atlanta di trophée des champions ah mu nekkoon Real Madrid gis ngeen daaw moo jëloon li nga xamante ni moom mooy Ligue des champions ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Atlanta ah ñoom ñoo jëloon li nga xamante ni mooy Europa League tey nag ñi ngi xaar. ki nga xamante ne moom mooy ah, Kylian Mbappé parce que gars yi gis nañ ni euh, actuellement mi ngi en forme boo war na mën a bokk si mach bi seulement que euh, joueur Barça bii di euh, ki nga xamante ne moom mooy Camavinga gis ngeen ko démb nag moom dafa am blessure bu méttee métti ah ba finalement gars yi tiit nañ trop actuellement nii nag gars yi ñi ngi naan nag est-ce que dina gaaw euh, fubalaat ndaxte mook Tchouaméni ñoo am benn accrochage boo xamante ni ah si euh, seen entrement tey lañ ko war a examiner pour euh, xool ba xam ah blessure boobu fan lay mujje mbokk ba tey rek ah, ñu ñëw ci ah, ñu ñëw ci ci FC Barcelone gis ngeen actuellement nii ah, ñoom nag bu ñu xoolee ah seen président di di Laporta. moom nag euh, gis ngeen dafa euh, mel ni nag ku mere lool lool lool ki nga xamante ne moom mooy euh, Nico Williams ndaxte moom dafa jàpp ni ki nga xamante ne moom mooy Nico Williams ah daf leen trahir ndaxte da leen joxoon kàddoom dem ba ci biir ah, génnaa ci mu nekk loo xamante ni ah, bu ñu déggee kàddu yi nga xamante ne moom la président bi wax dafa mel ni ah kàddu googu metti na leen lool lool lool lool nag ah mbokk ñu ñëw ba tey rek ah, ci ci transfert yi ndaxte bu ñu xoolee. Ah, euh, ki nga xamante ne moom mooy club France bii di Nice Nice am na accord ak euh, Al Ali euh, ci joueur bii di Mohamed Abdel moom ah Mohamed Abdel moom nag ak ak club bii di Nice ah am nañ accord ba nga xamante ne gars ñu ngi naan transfert dina toll ci. 4 millions d'euros plus 1 million d'euros de bonus en hein, ci contrat bu toll ci 5 euh, ans maintenant tey mbokk ñu ces transferts rek transfert yi hein, accord amna, na ci hein euh, Porto ak euh, hein, wa Juve ndaxte xale bii di hein, Francesco Conceição ah moom nag ñëpp xam nañ papa mooy mooy hein, euh, Sergio Conceição nekkoon entraîneur foofu ca Porto moom nag dèjà ñu ngi koy annoncé sax foofu ca Benfica hein moom nag doomam bii di Francisco kon c'est moom nag euh, gis ngeen ah euh, day mujjee dem foofu sa Juventus ndaxte accord am na. ñu ñëw aussi tamit mbokk yi ba tey rek ah, ci euh, ah, Antonio ah Antonio Nusa Antonio Nusa nag moom dafay jóge ca Bruges war a nag engagé foofu ca Leipzig ca en ah, Allemagne bu ñu xoolee dina contrat mi ngi toll ci vingt vingt et un millions d'euros plus bonus mais dina signé contrat fii ba mille vingt neuf. ñu ñëw aussi tamit ci club bii di ah club bii di euh, Manchester ah Manchester nag mbokk yi xam ngeen actuellement nii nag euh, ñoom ñu ngi wër li nga xamante ne moom mooy euh, milieu terrain parce que mook ñoom ak Paris Saint-Germain ci jour bii di jour bi di ah ba jour parisien bii di ah di di di di. Euh, Ugarte ah Ugarte ak ak ak ak euh, Manchester am nañ accord mais Manchester ak Paris Saint-Germain ba léegi ñoo juboogul ah ci euh, transfert Ugarte ba tax na léegi nag bu ñu xoolee nag joueur monégasque bii di Youssouf ah Youssouf Fofana ah Youssouf Fofana Youssouf Fofana moom nag actuellement nii bu ñu xoolee Manchester dugg na ci ay dossier moom malgré nag moom euh, Milan la choisir mais dafa mel ni actuellement ni nag Manchester dañuy wër militaire te moom lañ choisir gars yi ñi nga xool ba xam nag finalement dina nangoo dem ca Manchester wala day insé pour euh, dem foofu ca euh, Milan AC. gars yi ba tey rek ah ñu konne li nga xamante ne moom mooy transfert rek ah N'Golo Kanté moom nag actuellement nii gis ngeen ba démb ba tey hmm, turam turam mi ngi génn ci ah ci Atlético Madrid actuellement ni nag waa Atlético Madrid nag actuellement nii ñi ngi commencé. ah pour fexe nañ lañu war a mën a gisante entourage u Ngolo Kanté pour fexe xool nan la ñuy discuter pour euh, transfert u Ngolo Kanté seulement que gars yi li ciy tiit nag mooy bu ñu xoolee Ngolo Kanté li koy fay foofu ci Arabie Saoudite dafa bëri ah salaire am salaire dafa bëri trop trop foofu mais de toute façon gars yi ñu ngi topp information boobu ba xam Ngolo Kanté day dellusiwaat ah euh, biir Europe ah, wala boog day obligé rester foofu ci Arabie Saoudite ndaxte actuellement ni bu ñu xoolee Atlético Madrid moom ñu ngi pousse. ñu ñëw tamit ci si ah, euh, xale bi ah la. ah wala boog sax ah noonu ñu ñëw sax si ah, xale bii di ah, Alpha Diallo hmm, alfa Diallo moom nag ah, day mujje quitté foofu ca Bordeaux Bordeaux nag gars yi gis ngeen nag ah dañ ko wàccee presque ba national ndaxte actuellement ni dañoo am problème finalement dafay euh, signé ah parce que agent libre contrat am dafa jee foofu mais finalement dafay signé foofu ca euh, Lens mbokk yi ba tey rek ñu ñëw ah ñu ñëw ci euh, ñu ñëw ci Juan Nool Julian Julian Arojo nekkoon foofu sa Barça ah moom nag dafay mujjee signé foofu ca Bournemouth ah Bournemouth lay mujjee dem ah nekk benn jeune bi nga xamante ni mi woon foofu ci Barcelone ah Julian Arojo moom nag euh, finalement day signé ah ca Bournemouth transfert mi ngi toll ci 10 euh, millions d'euros gars yi nag actuellement nii club parisien bii nag ñoom ba boobu ba léegi nag ñi ngi wër kan moo war a mën a remplacer Kylian Mbappé ndaxte bu ñu xoolee actuellement nii. gis ngeen euh, Nico Williams temps yii passé moom lañ toppoon ah pour mën nañu wax ni proposé woon nañ ko xaalis même salaire bu baax mais finalement gis ngeen Nico Williams moom dafa décidé recevoir foofu ca Bilbao. ba tax na actuellement nii parisiens yi ñu ngi wër nag kan moo war a mën a remplacer ci côté gauche bi ki nga xamante ne moom mooy Kylian Mbappé actuellement nii euh, comme dossier euh, Nico Williams échec na. gaa ñi nga naan nag euh, euh, Jadon Sancho actuellement ni moom moo gën a jege ndaxte bu ñu xoolee ñi ngi wër Jadon Sancho ñi ngi wër wër ki nga xamante ne moom mooy ah, euh, Lamine Yamal ñi ngi wër aussi tamit ah, ki nga xamante ne moom mooy joueur Milan bii di Raphaël ah, Leao ñi ngi wër aussi tamit joueur Napoli bi nga xamante ne moom lañ njëkkoon contacté muy muy muy Kavicha ah chez l'IA ah, nekk foofu ci euh, Naples mom, nak buñu xolé nak mom, mom, la mom la moom la parisien yi top. mais finalement li ci Naples doon laaj dafa bëri trop trop finalement motax tax hmm, ñu jé bàyyi dossier boobu batay ñu ci Paris ndax actuellement ni peut-être wu guñu ci moo ñoom ak euh, Manchester ndaxte Manchester ñi ngi laaj euh, ci Sancho lu toll ci 60 millions d'euros mais juboo guñu nag mais parisien yi daal ñoom pare nañ pour proposer salaire bu tollu ci 17 millions 17 millions d'euros par année ah ci ci ci euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, salaire u ah Sancho yaa naa loolu nag montant la boo xamante ni ah salaire bu bu am am solo la boo ba tax na rek ñi ngi xaar transfert u Sancho boobu ca Paris saint ma ñu duggaat fi nga xamante ne moom mooy en Espagne ñëw ci ah Ayoze Pérez nag mbokk yi nekkoon sa Real moom nag na fa war a dem nag engage foofu ca Villarreal hein. Ah, mom nak dina signé contrat bu toll fi ak ah, en 2028. ñu ñëw ci Kingsley Coman mom nak actuellement ni bu ñu xolé Bayern da ko bëgg jaay mais moom nag choix bu mu def mom daf ni euh, dafa bëgg déllu dellu ñëpp xam nañ ni Coman ah Kingsley Coman ñëpp xam nañ ni Paris lañ ko formé mu dem Juve jóge fa après soog a dem foofu ca Bayern Munich finalement nag moom nag dafa décidé ne moom dafa bëgg dellu foofu ca ah Paris Saint-Germain. bu ñu xoolee ah excentré bi nga xamante ni daaw dafa def euh, saison bu baax muy Cole Palmer nekk foofu ca Chelsea moom nag finalement dafay prolongé contrat ba 2033. ah ba 2033 ndaxte ah hein, mom daw ah hein, bu ñu saison bu bu extraordinaire la def ah fofu ci Chelsea mbok yi batay rek ñew ñëw kon si transferu Bayern bi di muy ah euh, Delay Delay ah Matheus Delay nek défenseur néerlandais nekkoon euh, fofu ci euh, Bayern nak da fay mujjé signé contrat ah ak Manchester ak Manchester United contrat bi dina dina toll ci 45 euros plus 5 millions d' euros de bonus. moom nag ak Mazraoui Mazraoui également ñoom ñaar ñëpp euh, ah ñoom ñaar ñëpp ñi ngi nekkoon euh, fi ngeen xamante ne moom mooy euh, na finalement ñoom ñaar ñëpp dem nañ fi nga xamante ne moom mooy Mazraoui moom it signé na contrat millions d'euros plus cinq millions d'euros de bonus mbokk yi gis ngeen actuellement ni ah mi ngi mi ngi dem bu baax a baax ñu ñëw si ah défenseur sénégalais bi ah, xale la mi ngi am vingt ans moom nag euh, Sidi Bañ Sidi Ban ah Sidi Ban nag dina signé euh, contrat ah ak euh, ak Lens ah moom nag ñu ngi xaar parce que actuellement nii gars yi dañ ko annoncé mais ah officiel bon officiel guñ ko quoi officiel lagul mais daal li ñuy wax moom mooy accord am na muy Sidi ah Sidi Ban ak ak ak ak Lance am nan am na accord muy jeune défenseur sénégal bi am vingt ans xale la en tout cas ñu ngi topp mu aussi information pour xam ah fu muy mujjee ah Sergio saaw nag ah, ah moom nag ah, yoroon Porto coach moom nag finalement dafay jóge foofu ci ah moom jóge na sax si Porto actuellement gars ñi ngi naan soo matul moom mooy mujjee ah, coacher club bii di Benfica ñi ngi topp aussi tamit information boobu. ñu ñëw aussi tamit ci Moïse ñu ñëw si Moïse Bombito Moïse Bombito moom nag ah moom nag day signe contrat ak waa Nice. jusqu'à ah jusqu'à jusqu'en deux mille vingt mille vingt huit ndaxte moom actuellement ni moom lañ jàpp ni moom moo war a remplacer ki nga xamante ne moom mooy Todibo ah ndaxte Todibo gars yi xam ngeen ni dem na foofu ca en West Ham moom nag kon contrat am dina toll ci ah sept millions d'euros muy Moïse ah Bombido mbokk ñu ñëw ba tey rek ci euh, Monaco. Monaco nag gis ngeen keroog nag ah ci ah euh, si match bi nga xamante ni def na ko ak FC. Monaco nag ak PSG dafa mel ni accord am na ci Jordan Taze ah Jordan Taze nekkoon foofu ca euh, PSV ak Monaco am na accord ba tax na gars yi ñu ngi naan war na signé ko war na am transfert bu toll ci douze millions d'euros accord am na foofu. mbokk yi ba tey rek ah ñu ñëw ah, ñu ñëw kon comme ni ngeen ko xamee rek ah, di leen wax ah bu leen fàttee nag ah bu leen fàttee abonné partage ndaxte comme ni leen koy waxee rek saa su nekk dañuy ñëw yéen ci information yi nga xamante ni moom mooy euh, transfert yi kon ñu leen jox dig daje beneen yoon. ci kanam tuuti jaajëf.